pero baa ngi nii. waaw dafa leer sama doomu nday ami kaw sa doomu nday nuyu naa la. maa la raw bilaay walaay. maa ngi lay ma dolli ziar wér wér. keroog ñu gis li nga génnee ci stade mu xaw a doy waar dafa mel ni keroog da nga xaw a yëngu xaw a mer. waaw keroog wax dëgg yàlla ku gis caar yoraa nga xam ne bés boobu noonu bésam la woon ci wàccaay ci lépp préparation yëpp mais lamb dañ ko war a xoolaat caytu ko ndax stage buy def buy buy buy buy arbitré. souvent bu paree war na mën a mobiliser yeneen arbitres yi ay supérieur ñu waxtaan bu baax baax ndax arbitres yi dañ leen jox respect trop mais wax dëgg yàlla keroog gis liñ gis ci làmb ji kenn du yëkkati loxo caatu yaraax kenn di am lu mu koy lam-lamee mais nga yëkkati loxo Mame a adduna bi yëpp yëngu ne la li nga def du yoon balaa dara xoolal far Mame Balla Cissé dañ ma jox xama victoire dugal naa retour dama ko daan jël bu rëy barki alxuraanu karim man sama carrière dama ko respecté te te te Thiat dafa mel ni bi yoon mooy deuxième fois mu dina arrivé ci lamb. non bi yoon mooy deuxième lamb kenn mënu koo xam lamb kenn mënu koo xam. man na ñaari combat yi tegloo yëpp. waaw parce que boo xoolee ba waaw euh, Maguette Lazer amoon na erreur bu mel ni ci première euh, action bi boobu ñu doon lam-laamee ndax njaax la wala du njaax amoon na ci deuxième fois bi nag bii sax parce que bii bii moom wax dëgg yàlla moom bu fekkoon lim lim moom liggéey bi nekk ci moom ak gi nekkoon ci moom mi ngi fa ba mu ba mu Yaraax la ñu waroon wax. mais dama résister côté épaule am parce que nit ki mënu laa corosé ci épaule ay tànkam mbot la fes laa fesam laal suuf wala épaule am laal suuf mënu nekk dafa dëpp ba pare ma soog a jóg wax dëgg yàlla te moom ba mu dawee jël sama tànk ci la loxoom laal sama jumbax loolu moo waral suuf bi tax sama jumbax noonu xaw fa tax mais nañu waxante dëgg ci atu yaraax jour boobu victoiram war ko woon waruñu ko woon santeel waaw doonte def naa erreur nag may tuwal ñëpp nga xam ne doon nañu sonn def maa li yoon may dugal naa record bi depuis lundi. ba tey dara génn. CNG laay xaar comme ñoom ñoo ordre bi. nuñ doxalee rek ma xam ne mais Thiat dafa mel ni combat bi da nga xaw a xeeb Mame Balla ko. man moom wax dëgg yàlla. joxoo ko gëdd. Euh, waaw loolu am na ci. mais nag man waxu woon ne damay song Mame Balla dama waxoon damay taxaw xaar ko ba këram muy ñëw di bëree man li ma yëg di sax xaw ma ko. deretu xale rek moo ma topp quoi parce que cokkaas naa ko mu arrière ma dox ci kawam pour dóor ko mu daanu mu jiw a kuub bi mais la ñuy wax mais dafa mel ni li nga li nga signature aussi moom nga bëre. su nekk rek man du ma mën man mënu ma nëbb sama bopp ñëpp xam nañ ma ku seetaan caar yaraa xam ko jaru mooy nëbb sama bopp man du ma mbër buy nëbb sama bopp mbër buy nëbb moom mooy mbër moo xam ne day rasu ba lamb jeex man damay ñëw dal ci kaw mbër bëri moom te ba roi des arènes noonu laay bëree ci kattanu suñu borom man du ma taxawal mbër dinaa la jox sër mais dinaa ram ba jàppale bëri yow mu jeex keroog caat mobilisé lu rëy keroog jaay naa 4 millions caay loolu caat yaraa ko mën ba pare mu demee noonu. barki alxuraanu karim. mais caat fu mu fi ma jëm mooy euh, nañu xool lu logique rek man mbër mu logique maanaam adversaire bu logique laay bëril bu logique. waaw mais li ma dépassé moom bàyyi naa ko ginnaaw ko na la ba sonn te fi mu toll nii tey mu ngi. bëre moo Ndiaye Tine. ah lu tax bëre moom Ndiaye Tine. daa daan kilo teel. non bëre moo Ndiaye. ma ñëwoon si ñoom. waaw non jarul ngay wax dëgg yàlla sama plan de carrière actuellement ni moom bokk ci ah. waaw actuellement sama plan de carrière moom bokk bu ci nañ ma jox mbër ma bëri ñoom. Tony Junior tamit daa daan avant moo am combat la. non non non ay Tony Junior moom wax dëgg yàlla caatu Yaraax mbëru gox la man askan wi Yaraax dañ maa yaakaar mais ba may wax wax mu mbëri mag man ci catégorie bi ma dugg dafa baax ama neex na ñëw ñu bëree ah. Alioune Seye 2 na ñëw ñu bëree. Alioune Seye 2 mi nga xam ne ñëpp a guy gi guy gi maa ngi koy dégg muy retatati naan booy bi daa xamul mam Balla xaw ma nangaram guy gi na téye làmmiñam barki Seydina Mohamed Aliou kii moo ngi attaqué barki non guy gi daa war a bàyyi wax ju bari ji dafa bari wax ay mam Balla xamul caatu caatu yora xamul booy bi xamu ko lan mooy booy bi xamu ko yow mam Balla ma dëpp ko moom bu la daanee mbapat tamit man dama koo dëpp ñëwal ñu bëre guy gi ngay wax guy gi na ñëw ñu bëree barki Seydina Mohamed moo ko ne xale laa maa la daax bëri maa bu kattan fuuf kan amul kele bu ma daanee jarul muy toog ci média yi di ratatati di wax naan ay Mame Balla booy bi da koo xamul Mame Balla 10 000 combats man maa ko mën mënu maa daan. billaahi wallaahi wa taala Ami Collé man du ma découragé mukk damay suul tànk yi ndengeñ bopp bi guy gi ñëwal. guy gi ngay wax na ñëw na bàyyi wax ji. ñun lamb lañu def ay xale yu ndaw lañ trois ans nga Alioune Seye 2 nga xam ne kenn da ñëpp fi bàyyi. kenn musu laaj. voilà man trois ans de carrière laa def ci lamb ji. victoire am guy gi amu ko. damaa tegle douze victoire na ñëw ñu bëri maag moom bu dee dëgg la man nag bëri maag yenn booy wax dëgg yàlla parce que làmb daa am looy dépassé am na looy jëlaat rek day mel ne da nga taxaw wala nangam sangam te xaaruma loolu waaw na CNG bi rafetal sama victoire ma xoolaat beneen mbër mu mën a jël incha allah rabi ci kàttanu yàlla. ñoo ngi la demee nag.